jëwriñ ci galo lépp lu jëm ci wàllu urbanisme logement ak hygiène publique di Abdou Karim Fofana nag ñëwoon ci diwaan bu njaareem jàll si ci dëkk bu sell bi ci ci kanamu xalifa général di murid gi daal di koy gaaral li nga xam ne moom moo di projet bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di président Macky Sall fa séene tëral ci biir réew bu Sénégal li nga xam ne moom moo jëm ci taq-taq yi ak ñugu-ñugu yi ak li nga xam ne moom moo jëm ci bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne dañ koo def ci place yu mu nekk ñu daal di koy dindi ba mu set wecci mbir mu ni mel nag tax bi mu janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo kilifa yi nekk ci dëkk bu sell bi ci Touba mu daal di jàll fi nga xam ne moo di ca diwaan bu njaaree mu ngi daal di fay amal ab CRD ànd ko ak ki nga xam ne moo di gouverneur bu région ba ak mbooleem chef de service yi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wa ngir ñu daal di amal waxtaan sottantey xalaat ngir liggéey bu ni mel ñu xool ban anam lañu ko gën a mën a tëralee ba mu gën a mën a mucc ayib ñu woon tàmbali tey nag euh, doxalin bu bees bu ñuy wax conférence territoriale conférence territoriale ñaar ñoo ko lal mooy waxtaan boo dañ koy séq autorité administrative yi nga xam ne ñoo fi teew tey muy nga te nga jiite leen muy préfet yeeg chef de service yi ak sous préfet yi waaye it muy waxtaan boo xam ne dañ ko am ak population yi ci suba bi ñu jàllee ci xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké ba mu ñaanal ñu jox ñu ndigal ci li ko ñor ci te doon xemmemte fam ñu jàmp ci biir dëkk bi jàll nañ tamit waxtaan ak population yi def benn forum public jox nañu micro bi déglu leen ndaxte Touba it ku xam xam ne dëkk la boo xam ne am nañ expérience te yàgg nañ ci bëgg setal seen dëkk foofu daayira yeeg association yi dañuy organiser alxames bu jot di wër dëkk bi di ko setal ngir tontu loolu nga xam ne Sëñ Tuubaa waxoon na ko yéene ko ci xasidaam boobu ñuy wax Matlabul Fawzeyni muy mislas miha nga xam ne bu tuddee dëkk bi doon Touba day wax ne dafa am yéene mu mel ni turandoom ba ca àjjana donc loolu tax ñu dem déglu nit ñi taataan seen mbébét ci wàllu set ci wàllu désencombrement nga xam ne fépp foo dem ci Sénégal rek da ngay mët na natt soxla bi benn la mooy dañu bëgg réew mi niñ koy taggee ci teraanga niñ koy taggee ci mbaax niñ koy taggee ci am kilifa diine yu baax ñu mën ñu taggee yi ñuy taggee yeneen dëkk ci set ak ci setal loolu nag xam nañ ne nguur kese mënu ko état kese mënu ko euh, administration territoriale kese mënu ko mairie yi kese mënuñu ko il faut ñun ñëpp ñu boole suñuy doole ñun ñu am woyofu déglu leen am woyofu déglu seen xalaat ak xam bi administration territoriale am boobu ba léegi ak góorgóorlu bi nga xam ne ñu ngi koy def pas-pas bi ñu ci wane waaye tamit ñu yee nit ñi li nga xam ne moom la tubaab di wax sensibilisation wax leen li nga xam ne mënta ñàkk tey mooy ñun ñëpp ñu boole suñu doole ku ci ne fa nga war a jàpp nga jàpp ci état bi indi dooleem indi moyens yi gouverneurs yi ak préfet yi organiser ko fa ñu ne bu ko defee ñu doxal ko looloo waral ñu teg comité national. pour l'hygiène publique et le, la lutte contre les encombrements. conférence territoriale yooyu la nag moom jëwriñ ji li fas yéene wër ci gox-goxaan ak dëkk yi gën a mag ci réew bu Sénégal ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk bokk moomeel ya ñu seetlu ci lu bëri ne bokk na ci li nga xam ne mooy problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mooy garage yi nga xam ne day sosu ci ci tali bi mooy activités yi nga xam ne lu ci bëri. moo xam menuiserie la moo xam ñi nga xam ne dañuy defar diw te jëlee ko ci gerte mooy ñi nga xam ne dañuy def menuiserie ak yeneen ak yeneen boo demee fu mel ni tuubaa marché gerte ak yeneen ak yeneen nga xam ne tey dëkk bi ni muy doxee ak ni muy màggee jot nañu sàkkal leen ay bërëb yoo xam ne ñoom ñoo fa ne président loolu la joxe ndigal nee na waxul ñu jël suñu yat di ko dóor nit ñi déedéet dafa ne ñu jóg di waxtaan ak nit ñi di leen yee ci ne dëkk bi màgg na màggaay boo xam ne waratuñu xeeb li ñu yor boo demee Dubaï dem dëkk yu mel ni France dem yeneen jël jaaykatu oto yi dafa am fu ñu leen sàkkal ci autoroute menuisier yi dafa am fu ñu leen sàkkal lu mel ni industrie bu ñu ko xeeb nar gerte di ci génnee dëwlin industrie la donte industrie bu ndaw la dañ leen war a utal ay zone artisanale wala ay zone industrielle yoo xamante ne dañ fay ne te du yàq dara ci dëkkuwaay yi. loolu le nag ngir daal di mën a dajale ay information waaye itam gën a mën a sottante xalaat ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ci xalaatum njiitu réew mi ngir di mën a jël ay décision yoo xam ne nii day tax askan wi daal di mën a nokki nokki bu baax waaye tam dund dund goo xam ne nii day ànd ak akuk dal. leneen li mooy absence de décharge yi dëkk bu ne wala commune bu ne war naa am décharge wala boog li ñuy wax intercommunalité ay communes yu jege yoo mën a créer seen biir décharge boo xam ne ñoo koy bokk di ko gérer di xool niñ ko taxawee. leneen li nga xam ne nag moom laay soññ euh, gouverneur ak préfet yi mooy ñu taxawal seen comité régional ak seen i comité départemental yi nga xamante ne ñoom ñoo war a daxal lii nga xam ne mooy. muy euh, stratégie nationale pour l'hygiène publique et la lutte contre euh, les encombrements nga xam ne yéen a ko war a taxawal donc ngeen def ko ni ngeen ko defee tey mu rafet lool mooy boole ci association yi boole ci. service technique yi. moom Abdou Karim Fafana tëccal kàddoo mi ngi woo mboolem ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk bokk moomeel yi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi ñu daal di gën a mën a jàpp ci projet bi muy fësal ne bu sottee mën naa indi li nga xam ne ni moom moo di ak jàppandal ci ñaari wàll yépp mu di nguurug Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di population yi dëkke réew mi